sin mangay ngay nelaw bu yewoo xalam yi bu yewoo samari asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan dellu si waat nañ mën a ñëwaat àndaat ak yéen ci samedi comme ni ñu baaxoo di ko def samedi bu jot ci seen biir waagaan show di wax alhamdulilahi rek rabil alamin eh, ndax wax mu yegg sax suñu borom la soob te ginnaaw ba nu ko saakoo nag mu may ñu mën a fekke waat samedi tey jii ànd ak kàttan ak suñ mun-mun ba mën a teewaat fii ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamin bu amul nag àpp bu sax dàkk di nuyu képp koo xam ne rek suñu yaay la suñu papa suñu yumpaañ suñu bàjjen yi delloo njukkal lu bëri ñu ñu fetee mag ak ñu fetee ndaw xam ne ñu ngi bëggee show bi di nuyu njiitum réew mi ah, hi excellence Adama Barrow ak soxnaam mi ak ñëpp ñu nekk si ci ginnaawam di ko jàppale daal di nuyu it bu baax a baax ko di Mouhamed Dia ak soxnaam madame ja ak ñi nekk ci kiw groupe bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk turam ak santam bu ko defee nuyu nag ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci àddina wërngal këpp fu ñu ti nekk rek fekk nañ leen fa ne leen jàpp bu loxo suñu juróomi baaraam nuyu leen nu ñu nuyoo boon wàccee leen tamit ci seen waay bu ko defee rek ñu nuyu edu moom mi ma jàkkaarlool mu ngi may manière di ma manière sama naamal kajoor lii ñang baalo biraan jëme kere salamaane biram caam kër ma jumb ak jaaxa yow yoo xam nga ma la wecceeg njool mu kayang ay maa si nga xam ne ñu kayang kayang ay te ñu ngi lay fay bu baax ñang baalo di la bégee nga xam ne mooy seen programme yi waagaan show xam ngeen ko bu baax a baax miin ngeen ko saay bu ñu taxawee dafa mel ni Euh, dañuy enjoy ñi nga xamante ni ñoo nekk seen biir kër yi di ñu di ñu seetaan di ñu bëggee réew mi yëpp ñuy bëggee wala adduna yëpp ñuy bëggee kon dafa dañ jàpp ne saay bu teewee fii rek war nañ leen baalu ak waaye war nañ sàkku ci yéen ñaan ndax ku ci nekk ka lay bëggal bu la leen day nangu moo tax maa ngi jël nuyoo bi rek delloowaat la ko nga nuyul ma àdduna yëpp waaye nag du ma fàtte ki nga xamante nii mooy njiitu réew mi comme ni nga ko waxee ndax Euh, boo duggee ci gaal bëgg mucc da ngay ñaan borom gaal gi mucc su ko defee rek euh, di nga mucc yéen ñëpp te gaal gi moo koy joow ñu ñaanal ko yàlla defal ko jàmm may ko ndam ci réew ndax ndam rek la bëgg ak ki nga xam ne mooy borom kër gi moom it ndam rek lay wër yàlla na ko yàlla defal ak képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog sa télé ñu ngi leen ñaanal jàmm ak rawatina suñuy way jur ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ñaanal leen jàmm ak salaam bu baax a baax saa su ne di kontaan ci ñoom kon tey jii nee naa la du yomb ndax xam ngeen waagaan soo dafa am nu muy demee dafa am ñoo xam ne ni ñun ñun ñun ñoo nekk si kanam mais am na ñuy accompagner saa su ne di ànd ak ñun ci liggéey bi ma jàpp ne tey euh, bu ñu ñëwee ba pare dinaa leen présenté ñi nga xam ne tey ñoo fas yéene ànd ak ñun ci waagaan bi dina doy waar. nuyu naa waa kër gi yëpp nuyu ki liggéey madame Niang di nuy bu baax sama turandoo waaye nuyoo bi yëpp ci loxo Khady Niang mu daw la nekk nuyul ku la neex. ku la mhm. neexul nga romb. maa la ko wax. <laughs> waaw bu ko defee rek kon noonu la ñu waa Badji Estate ñu ngi nuyu itam waa Kosoroor ñu ngi seetaan ak ñi nga xamante ne nag ñu ngi Europe. dafa am ko xam ne Badji Estate la nekk. waaw waaye daf maa bëgg ba man su ma ko gisee damay rus mm. muy sama yaay Ramatulaay Jàllo benn bis dafa seetaan beneen télé gis ma fu suma advert tele bi sax nekkul ci réew mi ci guddi gi la woo sama waa kër di leen wan mbégte gi mu am ci man mi mu gis ci beneen réew may def beneen publicité. déedéet loolu kañ la yàlla xam na ko fan yi rek ci ginnaaw. déedéet kay mu nekk loo xam ne moom lu mu gis ci man rek. ndeysaan da koy bëggee. ndeysaan yaa Ramatoulaye yàlla na sa jàmm yàgg. amiin yaa Rabbi jàllo jéeri yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin yàgg sa njaboot. bu ko defee ma nuyu nag spécial nuyoo. Mhm. ki muy nuyu aaw buuri këram la mhm. di xaritu jëkkëram mhm. jëkkër ji tam di xaritam mhm. muy madame Coulibaly Seri Bala laal la nuyu naa la ah kay waaw nuyu bu baax non kontaan nañ Bala parce que affaire bi nii la mbir mi nii la euh, bu la ci kenn ndax waa Basse yëpp yëngu na ndax yow en tout cas am na solo. la am naa daal xale bi ca lam salam mm. xale bi ci piisam. Mm. ci manière am ci mm. rafetam. Ah. bala <laughs> <laughs> ñu ne ko bu di nuyu sëñ Modou Sey ca Njawara mm-hmm. sama gan la woon yàgg na ba kaw mm-hmm. sëñ Modou Sey te daan sol jàllaabe waaw am Sey mu seetaan fu ne la wër sama nomba. kenn du moom barki yu dajeeg ami ca Touba. na ko doo dem te joxuma nomba xale. ñu ngi lay nuyu sëñ Modou nuyu soxna maam Diarra ak soxna Aram. ñaari soxna yooyu yal na yàlla dafa leen jàmm. bu buñ ci jógee ci ci ci ci programme tey bi. buñ ci jógee programme bi tey bi dañuy dem seeti Aji Yem sek Aji Yem Seck. Mhm. borom UDP. waaw waaw ah <laughs> maire boobu. waaw waaw waaw waaw. borom Gambia Democratic Party. waaw waaw kooku kenn du moom. buñ ca jógee ci kan lañ jëm. <laughs> buñ jógee ci moom dinañ dem seeti Fula association. ah Fula association. waaw luy seen problème ñoom. ah déedéet ma la ko waxee léegi. ah déedéet ma buñ ca jógee dem fan. buñ ca jógee damay dem seeti benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom. poson ndey jeeg bàyyi. ah ëpp na. ya ko ñemee wax man ko doon do si yar buñ ci jégué fan lañ jëm buñ jégué ci fofu dañuy dem séti Supreme Islamic Council mhm. eh, temps yi wax ju bari daf leen top wa xam nga dañ doon def to wa ñu may leen 1 million mhm. ca bir 1 million yoy ñu am leneen luñ ci tek ne mhm. lolo tax ñu jox leen ko waaye nañ tuuma nak ba set wéccé dina leh. dara du ca barki YouTube buñ ca joggé dañu dem séti ñibisi président Adama baro joggé Russia xam nga Russia mom neex na ndax xam ne ca jamonoy Gorbatchev laa fa nekkoon. non yow dama foogoon dangay bokk sax si waaye jamonoy Poutine. woon na ma ba sonn waaye xam nga man du ma demee noonu. Poutine sama waay la. moom kan waaye Gorbatchev xam nga ko. mi nekkoon président <laughs> président Russie. balaa balaa Poutine xaw ma garaaw yow doo mën a xam Russie. Mm-hmm. man moo tax président danga ma waroon yóbbaale ma wan la ruq yi fi ñu daan toog di naan waaye garaaw buñ ko euh, garaaw am problème. buñ fa jógee. Mm-hmm. kañuy seeti surprise lay doon. kooku dina ma neex ay ca mi ngi noonu kon programme baa ngi noonu dégg ngeen ko ni ko soxna Xadi tënk tënkee foofu dinañ fa jaar ak yéen kon bàyyi leen xel ne tey du yomb dinañuy doo yàkku cere ba noppi dolli ñeex yéen ñu toog seen sàllaa yërëm ndax xam naa ku ci sa fii xar ah xam nga dafa ñoo xam ne seen fii day day fett. waaw seen fii day fett xam nga. waaw suñuy reer duñ mën a reer ah, ah, ah nu ñu def <laughs> di di kay ndax di sóoraale ay ah, day xar di. yow tamit ah ah fii bu xotteeku fii woon. noo te xar xam nga kañ lay kañ lay gën a sedd. bi ñëw na mu ngoog kon yéen ñi nga ne seen fii dafa xaw a teppeeku yéen laa yërëm. waaw bu ko defee rek ñu dem seeti rek kooku di ajaratu yam sekka. Mhm. ajaratu yam sekka nag. la mu wax du ma leen ko wax de waaye bu ngeen demee ba seeti ko di ngeen dégg li mu wax yëpp meeting bi amoon Bakaw la xam naa ne dina yëngu lool waaye UDP yëpp daje woon fa Adjem Seck nag moom moom mooy mooy yaayu UDP moom dañ ko seeti te ñëw ñu dem te dellu si sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi mitin baa ngeen ñëw staan li tax mitin bi ñëw staan mooy ki ñoo njëkk oo bu koo dalal mu dugg ci biir géew bi te xaar góoy bi nag dugg te du nëbbatu mooy sunu yaay di ajaratu yam sekka moo mi nga xam ne moo boot ndaw ñi boot mag ñi te daw daayut bu ko defee rek ñu na ana maas maas mooy géwelam la dugga sil nga ñëw dugal sa yaay dugal ko waaw anti yam seeka. anti yam dugal doxal dox bi. anti doxal dox bi dugg si. anti yow doxal dox bi. anti yam doxal dox bi dugg si. anti yow doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. anti yam doxal dox bi dugg si. ewa jigéen maana jigéen maana jigéen maana jigéen dignité jigéen kalaas yaayu xale yi yaaka baax mi ewaay eh anti yama gi waay excellent excellent gaaw leen aca waaw waaw am na xorom di yaayu xale yi dawoon na bëtu woo daayo yaayu UDP aca excellent waaw jigéen jam ful la ñëw na. am fee ñëw na waaw ayca ayca. réew mi bëgg la nga bëgg réew mi. Mhm. réew mi yore saf nga safoo réew mi. waaw eh, kii de safu lee noom. waaw walaay la kenn bañu ko. ati yow safu lee noom. <laughs> waaw walaay la kenn bañu ko. ana ñu ko bëgg. ñoo ngi nii. ana ñu ko bëgg. ñoo ngi nii. ana ñu mu saf. ñoo ngi nii. ana ñu ko bëgg. ñoo ngi nii. ati yow safu lee noom. waaw walaay la kenn bañu ko. ati yow safu lee noom. waaw walaay la kenn bañu ko. jël bi yaay borom. waaw waaw jël bi yaay borom. waaw waaw loolu la neex ñëwal gël bi yaay borom waaw waaw gël bi yaay borom waaw waaw basa basa de boo wayu duma la jox de boo wayu duma la jox de waaw waaw gël bañu ko ante yow neexu leen waaw wallaay la bañu ko ante yow neexu leen waaw wallaay la bañu ko wallaay na kenn bañu ko anti ya ñawatina way anti dikkatina anti dikkatina anti ya dikkatina way anti ya ñawatina anti ya ñawatina anti ya ñawatina tarkukul كد تتكد كد تتكد اجل كد تتكد اجل كد تتكد اجل كد تتكد تعزم ورق Eh, baalal ma dala rek moo des afta nga ñëw kër ga. ay anti yaa génn yoruloo di sewul. anti yooyu man sax amaguma moto bu baax. léegi la ga dégg nga afta dinaa la toppatoo. su ma dee dama ñëw waaw maas na ngeen def. Ah, <coughs> ma demee la. ni ma demee. ma saak bi. ay waaw. bu ngeen ful la. Mm-hmm. Malok malam kecil malam. Menganggapan bola ngada. Nah, bah, nah, bah. Mas tanggal ni. Sama rek. Alhamdulillah. Namun ala. Wah, mungkin nanya, wien yang mungkin talk because meeting lah banjul mom. Baka mom lu faham rek lu faham. Apa orang nak lu am solo. Mangenu yu. Jatai bi mangenu yu kepa ku fiteo. Tachulen sen bopa. Tachulen, tachulen, tachulen, tachulen, tachulen, tachulen, tachulen, kaay nga jotali ma taxawal ni su ma ko waxee nga wax si soose di nuyu yaayi compagnie anti yam ko avec yaayi combinol be konton la di nuyu his excellency Mr. lawyer lawyer Dabo lawyer anti yam ko avec his excellency lawyer Ousainou Dabo konton la su ma ko na ya konton fa pare da mani yu waa bakaw biñ nekka nii abe bakaw kool be konton la wa ne tey jii ako bii suma bi seddana a jusoo sumu seddana si jigeni Gambia ak sumi at ak daal loo xam ne dafa dem di avancé ci réew bi jigéen yaa ci seen ginnaaw a fen o fen mu yaron ko ñaaton ñaato taamolom musoo la kaa sakke président Ousseynou Dabo président Ousseynou Dabo bi mu taxawalee parti démocratique parti ba léegi kabra démocratique parti loo votaan depuis 1996 kabri 1996 ay jigéen ñoo nekk si ginnaawam di ko dooleel musool damman la baak ñaato moo tax nag tey wala naa bii. dinaa wax de. abe diyaamu laa ndax wax dafa jot. wa wa diyaamu waatoo si. ndax Democratic Party. Democratic Party nekkul parti buy haajaarle. amoon ke parti mu yaanu kaka fii hmm. fadam. fan nekkul parti caaxaan. amoon ke caaxaan parti. bu am doole la. parti mu ye sembo solo. parti dimbalante la. parti ñoom maa ne la. ñoom rek ñoo mën a rëbb yóbbu kanam. moo tax président Ousseynou Dabo mu ne. wala naa président Ousseynou Dabo ko. ñun yëpp ñu jàpp parti bi xam ne suñ parti la. dégg nga parti wo mu tax ñu tale taamu. 2020. 2020. 2021. 2021. ñu toog ci toogu bi. ñu tale la kata siraw do. teg président ba a a a lawyer Dabo. mbaa fɔlɔ wiiw Ousseynou Dabo. ndax mu mën a liggéey réew mi. banko xanaa li ma wax neewu leen su leen neexee ngeen tàccu président Ousseynou Dabo 2021 mu jël réew mi albulo albulo ah ñuy waane parti bi parti soosa la dañ juum parti bi parti ñëpp la kon ñu ngi gërëm ñi nga xam ne dañ jógee ci APRC et puis a film call content la ñëw dugg si suñ parti inaata loola Ousainou Darboe la nit yoo xam ne daanaka mun nañ twenty people moom yaa ngi ko itam itam moo moom la de dangaa gaaw sa gémmiñ bi lan la lan moo si nekk tey le kuma fenko mono ay ma mono dong ah. lool moo tax sa bi gaaw ah, wala naa moo tax wala naa maa ngi gërëm képp koo xam ne ñëw nga dugg si parti bi. abe moo bee contre munul bota yi la parti ko nay naata join looya daabo la parti oto gërëm nañ leen. ñooy konton. sant nañ leen. ñooy tentu ngeen di leen wax ne. kaa fooye ko. am nañ añ pour yéen. konton bi jaan reer pour yéen. simaŋo bi jaan ndekki pour yéen. lal yu ngeen fanaan. kër yu ngeen dëkka. seen xol dina sedd si parti bi. parti bi moo am doole. parti bi mooy parti Gambia. waaw wolom. bu jógee foofu. ni a jee. dama bëgg a 2021. alafta 2021. man Adama Barrow maa ko fal. ate ate la Adama Barrow sindi si raw. Adama UDP ñoo ko fal. Adama Barrow UDP la sindi si raw. 2021 ñu folli ko. 2021 ko ca Alaba. Take His Excellency. président. président lawyer. lawyer Ousseynou. Daabo. Cheikh Daabo. nee na ma kontaan loolu laa bëgg de. dama kontaan li wax naa mooy. Ah. aka mu foo wala ñun di ko. kontaan nañ ci ñëpp. ñu kontaan da mool beeto. gërëm na ñëpp. ñoom mool bee tentu. ñu bari nag ñu ngi xam ne fi mu nekk parti baa ngee neex. mool bee yaa ne ko saañi parti boobu diyaakane. te parti bi dafay gën a neex. parti bi gën a di diyaalale. kon yéen jigéen ñi. atel musool fi ngeen jàppa jàppaleen foofu maa faloon baro man maay falaat daabo eh, UDP UDP United Democratic Party parti la boo xam ne amuñ caaxaan liggéey lañ xam tabax réew mi mu dem ci kanam ñu fal baro fal daabo coow li daabo ñoo kontaan ci yow ɓoƴiyatake ne seeɗa fala kontane wo caman bambo daago ñoo kontanti yow munana laaj dara ni bambal ñon kontane wo caman bambo dama gis ne rek jigéeni UDP dangeen ngeen déggu mm-hmm. ngeen di dee sax ba tey yéen a ngi ànd ak daabo lu leen daabo defal daabo daf ñu defal ngor mm-hmm. fulla fayda ak jom mm-hmm. bugga ñu fonka jigéen daabo fi mu teg jigéen amul benn njiit bu fa teg jigéen dafa respect jigéen dafa teg jigéen palaasam xam nga ne ñun ñii tey kuñ toppa depuis 1996 dafa am luñ gis ci yow. 2012 la élection amoon de tey fekkal ñu nga Bakaw. 11 11. waaw ba nga ñëw ànd ak Dabo ñëw seet si landing may Bakaw may Kunda. waaw hee maire dëggu nga ba tey yaa ngi ci parti bi. maa ngi ci parti bi ba léegi ndeysaan ndeysaan ndeysaan maa ngi ci parti bi ba léegi. waaw waaw waaw yal na yàlla guddal sa fan. amiin yaa rabbi góorgóorlu la de amiin waay. kontaan nañ ci yow daal amiin yaa rabbi waaw alhamdulilah ñoo kontaan ci yow. Eh, ba jeex tàkk ni maam Cheikh Rafal kontaane woon ca maam Bamba. Eh waay eh waay Fall kontaan ci yow ba jeex càkk ni man Cheikh Fall kontaane woon ci moom Bamba waay kontaan ci yow ba jeex càkk ni man Cheikh Fall kontaane woon ci moom Bamba wallaay ni man Cheikh Fall kontaane woon ci moom Bamba sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi ji waaw jéegi ngeen rek aji yam ah xam nga maire bi bari na ci man góor waaw man maire bi lii tax <laughs> man magee ne yow laa bëgg a mel kay ma wax la ma ñoo fal dañ koy man maire man lii lan la nii UDP ah? jigéen yi ah. ñoo fal man moo ma jaaxal te nee ah. na ñoo ko bu yeboo nag mu commencé paak ak baga ay bagaasam déet ëpp naa de moo ko wax de du man doy na mm-hmm. aji yam sek Euh, ñu ngi koy jaajëfal baax a baax di gërëm ba dañ koo xam ne rek jigéen nga am na solo réew mi moom jigéen ñi dañ cee yàgg bay ah, am na ci solo mm. ayca buñ ca jógee buñ ca jógee ñu dem rek seeti Fula association ñoom luñ wax te dellusiwaat kala fulɓe mm. en eh, haala ɗum noon nani eyo eh, aysatu ka pullo awa gasi hande ko pullo tan sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi ji bu salaamaaleykum. waalekum salaam. Ah, ah, yaa ngi si jàmm waaw na nga def yaa ngi si jàmm. alhamdulilah alhamdulilah naka liggéey bi. alhamdulilah yaa ngi ci kaw ba defu leen dara. macha allah alhamdulilah macha a ah, ñëw seen oote bi. tey lan moo nekkoon seen tawat. waaw tey nag dañu amoon waxtaan boo xam ne wax dëgg yi ñor nañu lool lool lool lool ndax li tax mu ñor ñu mooy jamono ji wax bi dafa bari lool ci capital fulaagu dañoo am ay wax yu sew yoo xam ne commencé na di ci génn te loolu ñun duñ ko nangu. ndax ñun Paul fi mu yaakaar naa ne fi mu ne Gambia ah amul kenn ku ñu war a mën a duut baaraam daal ndax sakkan nañ te ñeme nañ fi ñu jëmit kam nañ ko. te jàmbaar ngeen te jàmbaar lañ. wax gi nag bari na moo toogoon ma bëggoon tuuti rek nga may ma tuuti ma expérience ci li nga xam ne moo am président bi nga xam ne moom mooy eh, naka la tuddati sax euh, moom mooy président capital Fulago am na kaddu yu ma yëkkati ma ni am na kaddu yu ma yëkkati waaye am na it kaddu yoo xamante ni am na ñeneen ñu ko yëkkati. Mm-hmm. loolu laa bëgg a leeral. ndax dafa amoon jamono yoo xam ne. moom dafa amoon dafa mobilisation lu tolloo ñetti ñetti ñetti junne doomu aadama ñu waroon dem gis baro moom nag doxoon na loolu ba loolu ñu bëri d'accord ci man mii ngay wax may di wax ak yow nii amoon na fi jamono joo xam ne dugaloon nañ waxoon nañ ne dañu waroon bugg gis baro ba gis boobu mun a mujjoon na nekk waaye am na ñoo xam ne dañu demoon benn affaire di politique la understand nga waaye eh, ñi nga xam ne dafa am ñoo xam ne exécutif bi bokkuñu fu ñu nekk ñun pôle yi na wax dëgg yàlla ñëpp ay pôle lañ président d'accord woon na eh, vice président d'accord woon na exécutif bi daal mun naa leen ne membres yëpp daanaka d'accord woon nañ ci gis boobu waaye am na ñoo xam ne dañoo bañoon dégg nga ñi tegoon ñu bañ nag mooy dafa am ci parti yu nekkoon parti yi ñu nekkoon nag ñu xam nañ ko GDC la nekkoon dégg nga moom mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy secteur bi waaye yàlla dogal mu ne moom du dem ndax bu demee xam nga baro la baro la ñuy uyu ji te moom mu ngi ànd ak euh, GDC Mama Kandé te na wax dëgg yàlla yooyu dafay indi xaajale moo taxoon coow li bëri lool yaa ngi dégg loolu moo tax nag ma buggoon wax ne pôles yi yëpp kenn benn lañu benn bopp lañ kenn mënu koo xar ñaar am na ñuy wax ne nag président bi dafay jógee loolu pour politique mun naa nekk ndax bu fekkee ne politique la amul problème waaye ñun niñ ko gisee du loolu bëggoon nañoo toog moom ndax moom waxoon na loolu te biñ ñëwee waxtaan ci ñëpp déggoo nañ ci toog boobu nekkul affaire politique dañ bokk ci réew mi war a am lu ñu gisee président bi am war ko wax suñu soxla war a taxaw ak moom war a toog ak moom war ko wax ni lii lañ bugg ci pol lii lañ bugg àlal lii lañ bugg dégg nga baro moomu poli waaye poli te moom baro ñoom kese. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. pol bu mu neex nga ànd ak Samba. pol bu mu neex nga ànd ak Demba. pol bu mu neex nga ànd ak Yoro pol bu mu neex nga ànd ak Ablaye loolu po yoru pol kenn nekku waaye pôle yëpp capital fu laagu moom xam naa ne kenn mënu koo xar ñaar te koo bëgg xar ñaar dañu lay teg ci digg bi xotti la yow. Ah. loolu laa bëggoon mu leer ci sa nopp yi. Ah, kay man de li ma ci bëgg a yokk rek mooy man ba ma xamee pôle ba tey ci dëggu laa ko xam te dox te dul gestoo lii laa mos a xam ci ko boo ko dooree ci ñoom Moussa Ba ñooñu nga xamante ne dañoo dëggoo ñoom Abouba suñ jëlee yoon di dem dañuy dem te duñ gestoo waaye seen wax yi moom maa ngi koy door dégg ci seen association bi. association bi la ku ko bëgg a yàqu. dégg nga ña ànd ak baro nañ ànd ak baro te affaire politique ñu génne ko suñu biir capital fulaagu jogut pour politique ñi ànd ak Mama Kandé nañ ànd ak Mama Kandé nga man loolu laa wax ñi ànd ak Aliou Diallo ñu ànd ak Aliou Diallo ñu ànd ak Moussa ñu ànd ak Moussa dégg nga kala ko wii wii e wii maami na nga ne pol nga ci dëkk bii nga dëkk wala dëkkoo ci dëkk bi ñun ñoo bokk suñu capital fulaagu nañ ko respecté xaala pulaar waa dëgg la journaliste bi kontaan nañ si yow. Haalpulaar boo waxaa suma mbokki pël yi nga xamante ne ñu ngi bugg a jël li def ko yi fi politique. meneen fulɓe meneen fulɓe fof ko hunde wootere. ay sa sa ndaari ay ne wonki mun no way ni sa wi a serdini naɓɓi rek probléme heɓat tapital pulaagu noon ko hunde wootere ar kala adduɗo toon kulle politique minen min ɗum ɗo mi waɗani joyen kulle men waɗa hen kulle politique komin hawrit mm. pour min naɓa haala amen ka yeeso haala amen ka wawa wadde développe hakkude amen minen fulɓe kono min wiyani min nattina hen kulle politique ɓe e, adama baro jeyani fulɓe fulɓe jeyani adama baro kala yiɗɗo e, woɓɓe so yiɗi yo ya gdc ɓeya wona baro ɓeya wona udp haaji goɗɗo ala hen kono si min ari tapital pulaago wota min nattin hen kulle politique min min ɗum ɗo nangodira minen fof pulaago fo pular fof ko pulal pullo fo ko pullo woni pullo fuuta pullo fo wona pullo de no woodi no woodi fulɓe mo andanda ko danaka ko jolfe tan pullo fof pullo yo kam ne gamuñ sen boppa danaka danaka danaka ko ko jolfe wa léegi daal yéen si gàttal seen wax ji daal mooy yéen seen association bi doxu leen ci politique doxuñ si polo koo xam ne pol nga dégg waaw ak ko xam ne pol nga namp waaw ak koo xam ne pol dara di pol mooy daw sa yaram waaw du penn mais neen fulbe du ñu am soppeeku so yow xam nga ko kii pol la waaw pire soo ko gisee rek nga xam ne pol la pire dafa bëri nag ñoo xam ne dañu lakkoo pol yi ñu pol te duñ pol dañu dégg pol rek mm-hmm. nani kala sol xam nga tabital eh. pulaagu sax laalantewul ak politique mm-hmm. loolu dañ join rek pour yóbbu seen xeet yóbbu suñ xeet bi si kanam mm-hmm. ah, ak ñu ah. xool nu ñoo mbooloo suñ cosaan bi mm-hmm. buum réer ñu ko buum réer njaboot bi suñ màggee waaye affaire politique moo tax ba ñu def suñ tabital man daal yéen man saf ngeen ma man man man man dugg naa ci yéen man Paul laa nag yow kan yow Paul man ñang laa sant man suma maam yi tukulóor ah, lañ waaw boo demee Fuuta day Paul yi dëkk foofu yëpp ñang lañ sant waaw waaw saa yeey Gambia doo noonu xam nga. police yow ñaata soxna nga am. man. Mm. kamatuma nag ñaata mm, na la am. wax dëgg yàlla waaye ko am dañoo bëri wala dañ tuuti. bëri nañ ba mënu ma koy wax. tuuti nañ ba mënu ma koy xam. Uh-huh. waaw loolu daal laa la mën a wax. waaw kii Paul la. Mm. boo ko xoolee nga xam ne Paul la. nuru na ko ñun Paul yi ñàkkuñu fayda. bu ñu buggee gis président na kenn mënul tere ba ñu gis ko. wax ji dafa war a jeex ku nekk GDC nekkal GDC

am taal yaa leen lekk. ku bëgg taal mi haali mi haali tan. ah jaaraama jaaraama. sin ma nelaw. bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar nag moom dañ war di régler de seen yaram dafa tàng. déet man waxuma loolu sax waa ñum pël yi nag ay noobul lañ de. ah loo koy wax loolu. yii ay noobul lañ. bari na malaaka yi ñuy tudd ci kaw ñëpp ay pël lañ ay ñoom yontu yàlla jibril ak ay mikaayil ak nag yow it wàññil ah ñëpp ay pël lañ saa nga yokku volum bi bu ah, kenn day buure ah, ah, dama ah kon ah dama dama juum dama juum foofa mhm. fu garaaw la ñuy dem mu ngoog bu jigéen bu am fukki at mhm. ak juróom mhm. dafa poison yaayam poison papaam li mu def nag ak li tax mu def ko nañ dem seeti ko te dellu sin ya, ma ngay nelaw yaa ngi fine maa ngi fine waaw tey dama ñëw seet si la man la Khady Niang waxkatu QTV bi ah ok dégg naa sax at mu ngi toll si 15 years waaw fukki at ak juróom waaw 15 years ah waaye jànxa li nga def rëy na de nan moo la si dugal lan moo tax nga poison sa yaay ak sa papa yeah ya, bu ko def because xam nga suma parents yi duñ ma dee bàyyi ma free free pour def lan free pour ma meuna a ak anda suma hariti after school dañ ma dé bugg close dugal nek ma nek ci biir bi di janga you know duma lay meuna am suma free life té dama need pour am free life so dañ ma teach, tecc guddi duma meuna a xam nga ma ci biir bi dañ dee ma nek di janga di janga di janga bo dama bugg tam ma génn ci biti xam nga so yooyu noonu laa need mm-hmm. so dañ dé interfere ci suma life torop mm-hmm. so duñ nangu ma sol lu gaata duñ nangu ma génn a dem clopin ànd ak suma xarit te suma xarit dañ dee dem clopin. léegi ñoom luñ bëgg a yow nga jàng. yéen dañ bëgg a ma nekk ma jàng yow li nga def nii poison leen ñoom ñu lekk ko léegi ana ñu ñoom. ñoom ñu ngi si hospital léegi yow loo si jublu woon pour nga rey leen nga am freedom. no hmm? but because afhangan fu mu toll woon la. maa ngi ni nii doon freedom because situation. yaa ngi dem school from Monday to Friday. Saturday yaa ko moom. friday si boppam sax mun nga dem nga am dem seti sa friend wala sa friend seet la why the whole week Monday bi toze ngeen bugg dem school bugg seti friend bugg dem beach bugg a def lu nekk loolu du mun nekk yaay moy fay papa di dimbale So loolu yëpp suko suko su si buggee dem turu pour yeen ngeen dem ki kan la oh. mooy sa papa ki mooy may ko mu toog. kaay toog ne papa. ah di bëgg a seetlu. du ma nekk du ma nekk du ma nekk du ma nekk du ma nekk du ma nekk. bëgg a seetlu. ah di bëgg a seetlu. toogal rek papa doo mun a taxaw. toogal. dama nekk dama nekk dama nekk dama nekk. def nga xaaral ndànk def mu noppale ko rek. dama nekk. tuutal tuuti waaw. massa yaa ngi tane. ana ana ana jigéen bi yaay booy. waaw moom bàyyi wuñ kon yow sax bàyyi la. ah da nga ñëw rek pour atteindre QTV. ah ñu ngi laa masawu bu baax. sa doom bi dégg nga lu mu complain. mu ngi nii toog. dégg nga lu mu complain ah, mu ne may leen ko liberté ah. amut freedom si life am ah. du ngeen nangu mu seeti xaritam yi du dem club du dem du génn kenn du ko seet si du ngeen bëgg a mu sol lu gàtta du ngeen bëgg a mu sol lu bon loolu moo mu defal poison pour ngeen lekk ko Yeah. Ndeysaan ndeysaan eh, ya personal ini, faala eh, ini ndi baba ini baba ilaftan faala laftela suma wor nga telem da nga bëgg mu baax rek ndeysaan débi bul jooy bul jooy bu passé passé na réccu iya. nga ko léegi mu ñaanal ko rek nga jéggal ko baalul axa sa papa wàcceel nga baalu axa sa papa baalu ko axa dadi maa ngi lay baalu axa waa baal ma axa dadi defati mel nii duma ko musa defati ah, baal ma axa nga ma bugg a rey ba ma be daddy no suma dee sa ba sa yaay dee nga tolo no daddy bugga nga baax ani odiga oh, sorry dafa juum rek ko fa dafa juum rek balal ko baalal ko nga ñaanal ko baalal ko rek dafa rëccu rëccu na ko trop ani oh. ilaf doon faala sorry sorry no daddy sorry daddy sorry ilabute ba mafa ah ndingo pashino yedimola ah ana maire bi maa sonnoon. maire bi moom mu si la. demanding après moom mënut a ñëw demanding. moom rek mu dina ñëw si kër gi. fa mu gis xale bi yóbbuwaat leen ko ko yóbbuwaat leen ko. ay ay ay ay. masa masa. ah Ndingo ah lii bu ko dara jaralaan yaay ak papa dafa neex dañ soona yaay mooy ëmba juróom-ñeenti weer yaay mooy nampal yaay mooy boot yaay mooy tete yëpp yaay la papa bii nii tey li waroon sa diggante ak moom nga jàng ba jeexal nga jël ñëw jox ko ticket maka na ko demal màkk teral sa yaay doomi jigen ñi léegi ñoo tedd dañooy tabax keer dugal bay tabax keer dugal seen yaay li bu ko defati dama bëgg nga jox léegi nga dem ci l'hôpital mi fekk sa yaay fum mu nga sukk ci ronam nga apologize nga toroxlu pour won ko ne li nga def dang ko reccu jogal sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi bu yewoo sa mari lii de bëggante leen bëggee solo. moo eh. jar lii lépp. Eh. Ah. rek moo tax lii lépp di am ah. ah doy na waar. man bàyyi naa mbëggeel ah, man ku ma bëggati sax ma reen pare léegi dëgg sax dañ koy jël denc ko naj ko lem ko. ah ko ci biir pot tëj ko. dëgg amatul fen ah sonn man di ah? sonn ay man xale bi dang ay ay bi tax nga bëggatumaa jur doom yaay ay gone gi tax nga bëggatumaa jur doom ah ah wasin ba booba rek bëggoon na caa uji wala waroon na caa dem emuñ ca loola nampal boot yar téete ba nga màgg dab jàng amoo dara loo fayee yaay jox poson mu naam ak bàyyi fa laa yem ndax benn yambar bu mel ni kan naa waagaan sii di joxate ana mu <laughs> ñu delluwaat dem seeti um, uh, waa Supreme Islamic Council mm-hmm. dafa am ay wax yu ñuy dégg ñoom nee nañ mm-hmm. dañu ne nguur gi daf leen may juróom ñetti million mhm. waaye ñoom ñu ne dañ leen ko dig waaye gisuñ dërëm dalasi bi gën a tuuti tulaalibar boo ko xaajee ñaari tranche la ah. gisuñ dara xam nga ñoom dañ demoon too waaw dañ def no neesoon waaye too mhm. léegi nag ñu ne government bi daf leen joxoon eight million dalasi mhm. balaa ñoo dem too waaye ñoom sax ñoom ñoo ñoo taxaw wéy del seen bopp ne ñoom maanaam sax ñoom dafa am sax lu ñu leen digoon sax joxuñ leen ko waxuma laaj un million de waaye lañ jotoon a wax ak ñoom sax joxuñ leen ko far ñoom nag loolu seen i bopp lañ koy defee at mu ne dañ koy def waaye loolu moom amul un million un million million ñii seetaan yëpp mm-hmm. un million yi nañ leen ko ñoom am nañ yeneen ñu ñu sàkk woon sax yooyu jotu sax am moo tax un million lay amut léegi ñoom la dem seeti te dellu si waat ah, السلام عليكم عليك السلام اه شو البرر كورتان انت الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله اه ها ها ترى البنيادي كورتان انت الحمد لله ما شاء الله اهلا وسهلا الحمد لله بارك الله فيك ها الحمد لله آه، نعيكم بخيركم من سلام معها الحمد لله بارك الله والله والله والله ما خيركم من كل سلام والله والله آه آه والله بارك الله أهلا بارك الله شكرا شكرا أنت بارك الله ah naka waa kër alhamdulilah mu ngi noonu hmm. sumolle alhamdulilah albakanne kortanante alhamdulilah alhamdulilah barakallah masha allah hadi ñang la alhamdulilah ah ah kay moo ñëw tey parce que maa ngi gis yéen a ngi def ci seen social media ah kay wone ne euh, réew mi yëpp ñu ngi wax ne nguur gi dañ leen may 8 millions ay te anaam ja hadi nya ah hadi mm. hadi ha ha anke moyde mm -hmm. anke ah. jeteleto anke jeteleto mm -hmm. kortanante alhamdulillah barakallah alhamdulillah mhm. ala do ko ni nyata bake allah do ko ka jibe bake alhamdulillah mbe duwa kele inchallah hmm. ale yake santo o alhamdulillah alhamdulillah mahamedi diale a be mo kende mo wati hmm. alhamdulillah ga konton bakele nga ga le contante dal la ñin television o ñin dina l'islam o men ɓe je woli atina mol ɓe ka jiibel usta solo kammolu kawandi ñaamen hmm. anin kammolu warindi ñaamen wolu bete atale wolu bete latta dina kanne bari because dindiŋolu imayla dino long so foyele dino long woni yatinna nden contante bakele alhamdulillah alhamdulillah ita ko ñaadi waaw dañ gis yéen a ngi def si seen uh, uh, wall bi mhm. wone ne uh, nit ñi bëri dañu wax ne nguur gi dañ leen may 8 million ah waaw léegi coow loolu nag dafa bari ba yéen ngeen ne ku ci bëgg am lu la leer nañ ñëw fekk si leen pour ñu leerlu ci leerlu googu laay dox pour am lu ma leer ndax dëgg la nguur gi jox nañ leen eight million pour ngeen def defee ko too wala lu subhanallah allahu akbar subhanallah la ilaha illa allahu akbar subhanallah la hawla wala quwata illa billahi alhamdulillah subhanallah allahu akbar la ilaha illa allah subhanallah allahu akbar alhamdulillah ah, allahu akbar subhanallah yàlla nee je comme li nga wax loolu laa bëgg a leeral moo jamaa ka fo ñun Supreme Islamic Council dafay dem too too bi président Barrow jox na ko eight million de allahu akbar la hawla wala quwwata subhanallah subhanallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hani du noonu de du noonu man de gannaaw wax bi waaye comme man maa nekk di wax ak yow foog ma leeral su du loolu jullit yëpp ju bari dina dem safara te julit soo waxee lu la leerul kullil xaq walaw kaana murran foog wax dëgga li fi ngay dee foofu yàlla mu ne innamal mu'minu ixwa julit yëpp benn la waaye waxtasimo bi hablillahi jamian wala tafarraqu jàppante leen bu leen taxaliko waaye waaye lan moo tax jullit du mun a xalaat loolu ci seen boppa di jël seeni làmmeñ di wax wax bu ñaaw di tam ay male si super islamique council ñun jëpp jullit la allahu akbar subhanallah la ilaha illallah iko ñun jox nañ eight million pour ñu defal campagne baro mu dem too ci àdduna bi wax ak diaspora pour ñoom ñu sànnil baro hmm. subhanallah allahu akbar hani wonde moo moo do la bobu amul mun yaa tinna yewo foye iman dalilo soto woyinte jahaltal ayin jahali bakel musilimo musilimo mi ye ko musilimo iti iman nyanna wo fola annu musilimo musin kendo buka wo fo fani a mambetiya wa legi ñun bo hole sax ñun supérieur islamique council 2017 war na ñun jox saa pour kii five million dollars boo xam laa dégg ndax yéen li ngeen sàkku woon ci nguur gi ñu jox leen ko ndax jot joxuñu ko jotaguñu ko ba léegi kon jotu leen boobu jotu loon eight million naka laa jotee eight million pour def campagne ba pare nga ne ñu war la jot depuis 2017 jotul sa five million boobu pour boobu ñu war la dañ lay jox nga yaakaar parce que ñun tam boobu suñ jotee nekkul ñu ñoo lekka dafa am lu ñu war a liggéey boo xam ne am na école arabe yu nekk ci réew mi am na xale ara xale yu nekk di jàng arab am na téere yu nga soxla am na ustaas yu war a jël pour ñu jàngal xale yooyu yëpp soo ko xalaatee dafa war a nekk te ci réew mi subhanallah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi yaa mooy loolu yëpp amul ndax nga jote 8 millions pour def campagne mu ne dafay def campagne xale yu jokk ndaw nekk di xas di taxaw di wax ne da ngay war a dem ci jàkka yi di julli di waar nit yi moo gën a ngeen dem di campagne président ah ku def loolu de li nga def baax yaa imam allahu akbar ah, du ma jël eh, bi ñëw ba dem te laaju ma la tam ñaari kàddu yi ma la bugg a laajte eh, eh, abdoulaye salaamaaleykum wa rahmatullah حركة الله السلام عليك الحمد لله أهلا السلام عليك يا كيف حالك كيف أنت الحمد لله كيف حالك الحمد لله صباح الخير الحمد لله بارك الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله تحولني تحولني ما مدني أم غن آه، غن بو gan لا الحمد لله كي Unique TV ra joge ah. dafa ñëw xibaar bu ñu dégg fi fan yëpp mhm. si suñu kaw la dal ñun ñoo tax ñoom ñoo tax ñu ñëw am lu leen leer waaye wax naa ko sant yàlla ñii nekk na seede suma diggante man ak yow ak mhm. yàlla billahi eh, super islamic council diina lislaam la xam mhm. moom lay doxal mhm. nit yi nañ bàyyi di waxta dara lu leen leer nit jullit da nga war a bëgg sa morom jullit oh. ñu nag yàlla def na fu nda takkusaan bi jot na waaw balaa ñoo dem rek ma jël benn opportunité bu ndaw rek balaa ma fiy génna mhm. eh, fan yi dégg nga lakk gu métti bu am kaanifin di yéen ci yéen a ngi yëngu ci islam ak diine yaakaaroo ne dañ war a génne sarax pour lu mun a aar réew mi wala julli lañ war a def wala ñaan ci yéen anam lañ mun a def pour balaa yi fi xew astafurlaa astafurlaa mun na lu nekk jeggalu yàlla defaraati jikko yi su defee rek lépp dana baax. li nga eene sa bopp. Mhm. nga eene ko sa morom. Hmm? njulit sa julit yàlla du mun a weer mukk sa julit yaa du mun a weer fekk li nga buggal sa boppa bugguloo ko sa morom. Mhm. loolu laa bëgg ñu xam. lu def jëf yooyu yep yalla na yalla utal sen warsak bobu buuta ya bu upp loolu ndax metina safara bu ñew yobu alal metina metina mhm. wallahi metina ñi ngi ñaan yalla yalla mu sutural len ñun yep yalla defal jam ya ñun day dem ci jakk bi ci ngata ci baax na man tam maa ñëwee quoi julli eh, ah, ngata ngata ngata tay mu siitale ala sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi bu yewoo samar Ah, waaw xaalis la de. waa ki doon wax nu mu tudd moom. Touré. moom dëggu de dëggu na de. moo Lamine Touré. hii moo Lamine dëggu na. ah imam la di. waaw imam ñu ngi lay imam nañ ba pare nga ñaanal ñu dégg waroon ngeen a jot ci 8 millions yi ndax ngeen bokkal ñu waaye nii ngeen ko waxee ni ñun suñu yaakaar dafa tas fi mu ne nii imam suñu yaakaar tas na na ah <laughs> yow tamit tas na waay xaalis moom na leer rek. buñ ca jógee. Mhm. dañuy dem seeti ji président Adama Barrow. his excellency ñibbiseem ba jógee Russia. com ca Putin na naa ndaama lang fa woon de. manga waaw waaw ma nga fa la lamin manga doomi aji ndaama gis naa la nga nuroo comme saaru tubaab yu kii na black américaine yooyu lamin manga yemal ci kii ñu rof la ci geen nuñ doon ah, de xam sa yaram booy booy boo tàngalee sama yaram du baax de booy dem Rossier doo ma tàggu. Ah, ok te yaa yore yow yaa yore kàddoom. maa yor feeling am. te waxoon naa laa su bàyyi mm. dama see fay xaalis bu bëri pour faju bàyyi re ngir yàlla dee si jàpp. non garaawul. waaw amul benn problème doo tooree. léegi ñu dem seeti président Alba Baro. te ñëw dellusiwaat. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi bu yeewoo waa bu ko defee nag ñu ngi nii taxaw di welcome suñu président ci dem bi nga xam ne demoon na visite dëkk bu am solo boobu di Russia ñu ñu biseen bi nag lañ taxaw fii tey di ko xaar président Adama Barrow tàcc leen ko bu baax a baax a baax. waaw ah, monsieur président ñu noonu baykat ey Moussa Baro neexu leenam waaw wallaay ne kenn bañu ko ci président xu leenam waaw wallaay ne kenn bañu ko ci président xu leenam waaw wallaay ne kenn bañu ko waaw wallaay ne kenn bañu ko na ngeen def yéen a ngi ci kawam waaw wallaay ne kenn bañu ko ci président xu leenam waaw wallaay ne kenn bañu ko bëgg réew mi réew mi bëgg la waaw waaw ni nga ni rek nga mën a mel dëgg la barke yu may baaba ndeysaan ñoo la bëgg ñu bëggante mbir mi bëggante la yaa ñu saf ñu saf la ay mbir mi safante la yaa ñu saf ñu saf ko ay mbir mi safante la yaa ko saf ñu saf ko ay mbir mi safante la ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg yow ku la fekkiloo ministre dina fekk ñoo ngi nii ministre dina fekk ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg doy na doy na toog leen toog leen ah! ñoo ngi nii bodyguard bodyguard fecca warta yàgg ay ay burga da fecc pëcc warta yàgg. Ah. Mr President ñu ngi laa wax ñu ngi lay gërëm bu baax di la mm. sant. ñu ngi laa nuyu bu baax di la wax masa coono. Mm-hmm. di la wàccee ci sa wàccuwaay. Mm-hmm. Eh, ñi fi taxaw nii yëpp nag ay taskati xibaar lañ. Mm-hmm. Eh, dafa am na benn wécceeku wécceeku bu ndaw rek bu ma gis. ci sa ñëw bi ndax boo daan ñëw. Euh, mun naa wax ne ñi nekk ci sa politique bi yëpp wala ci sa cabinet bi yëpp dinañ fi teew. Mhm. Euh, tey benn ci ñi nekk ci sa cabinet bi rek ñoo fi teew lu ko waral yaa ko wecc wala. waaw xam nga <clears throat> réew boo ci nekkee da ngay xool li koy doxal nga di ko def ministre yi nekk ci réew mi yëpp ñëw taxaw airport lu muy jëriñ oto yi peep peep peep yàq essence ñëw ñu tasaaroo dem amul njëriñ jëriñ ministre of defence rek doy na. ak ministre of intérieur loolu doy na ci réew. ñoom rek laa fi gis de. li nga lépp dëgg ah waaw kon loolu dafa jër ah. ñu nekk fi ku nekk ñëw taxaw. loolu daal si yaxanal yaxanal daal yaxanal dafa am solo. Mm. maa ngi gërëm nag Republic of euh, Russia. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm bu baax ndax taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci àdduna bi kontaan nañ ci bu baax dem bi ma dem nag du demaluma Gambia rek Afrique yëpp laa demaloon ndax ku ne xam ne ne. showit bi nga xam ne moo am foofu euh, Vladimir Putin oon oote ah, woon ko ah? Vladimir Putin oote woon loolu hmm. Vladimir wala Vladimir ah Vladimir noo ko mën a waxee rek Vladimir Vladimir loo ko mën a waxee rek président noo ko waxee baax noo ko waxee baax na mburu foofu ko fële <clears throat> waaye en tout cas demoon nañ fa Putin na nekk koo xam ne yéeneem ci Afrique kenn mënu la ko wax te man dama gis diggante bi nga xam ne mooy diggante suñu diggante ak Russia dem bi it gën na ko war a taxal waay waay buma ma bodi lu ngeen doon doon ay ministre bu ma waxee lu sax xorom xaw a bii su tuuti kaw ngeen tàcc tuuti sax <laughs> def na ku rek di ma xool waaye mi bëri na ñu xorom la ilaha illallah ah ñu jox la nga laajte loo ko bëgg réew mi bëri na ñu ñàkk xorom de suma réew mi bëri na ñu ñàkk xorom ah. comme ñu kii ñoo ñu gàtt ñeeg ñoo ñeneen ñi xaw ma sax lu wax waaw ko hmm, rek ku moga am loo Wow, uh, good afternoon Mr President. afternoon my sister. man nag uh, journalist from Q Radio. Q Radio. Wow, ñu bëggoon bu am doole. Wow. yenn saa yi affaire yi TRRC bi sax foofu laa koy dégloo. ci avion bi la fekk may di Deglo radio bi. Hmm. Mhm. dëgg la kañ. Hmm. ñu gis nga dem Russia. Mhm. Uh, ñu bëggoon a xam sa tukki bi Russia lan nga si jublu. waaw ma ci jublu mooy. Hmm. ñëpp a fa won. Gambia bokk ci àdduna moo war fa teewal réew mi nekk président dem teewal leen fa kon dafa mel ni Gambia yëpp fa teewoon waaye jotaay bu am solo sa làcc bi neex na ma ndax maa ngi commencé gis touristes yi nga xam ne ñoom ñoo daan jógee yeneen réew yi mhm. toor réew su Russie daa daw daw ci bokk waaye fi mu ne Russie commencé na ñoo am ak ñun ay na ko te lii dina ko gën a yokk kon deb bi am na solo waaw déedéet monsieur président mhm. dañ gis yaa ngi kangu yaa ngi yow monsieur le président sa dara yomb de. ah te dama dama dégg nag moo wax dëgg yàlla moom. monsieur le président nga kangu nag ba baax nag toog ñu di télé bi di la zoom rek. am na lu ma métti nag lool dinaa ko wax. mooy lan man dama toog. di raay suma biir ñu jël seen caméra yooyu jël sama bët yi taf ko be ma mel ni kuy nelaw te loolu yàlla mi ñu tim xam na ni nelaw. waa nelawoo man suma bët yi tuuti wut. waa nelawoo la yu rëy laa yor. moo tax ngeen jël ko fexe fexe ba tapp ko rek ma commencé def nii. waay waay waay nekkul woon di nelaw dëggantaan jukkoo woon nekkul woon di nelaw. nelaw moom bu fekk feeg defuloo nii. Hmm, hmm, nelawuloo hmm, mun mun ngaa na yenn saa nga nga ferental rek. ferental. ferental nag mooy nii. te yooyu yëpp defoo ko. waaw xam naa benn ferental lañ tombé rek taf suma bëri rek door ko waaye loolu ñàkkari na ma trop. bu ko xamoon journaliste bu ko def ok ko ah. waaw nga ne. man de Facebook laa ko gisee. bëggoon la ko lacc sax waaye xam nga dama ragal. kon xaaral ma balaa ma koo laajte fii. non bàyyi ma yéen ah. ah, na xam nga tàmmaloo ñu lii dañ tàmm soo jógee ñëw bégal ñu waxtaan nañu kafa ñu. man bégalu leen ma bi ma fi taxee ba léegi nii laa gis ngeen def. waaw ah. tàccuwu leen réewu leen. wala jox xaalis ngi ni sa géwél ngi ni président. yow foo dee ma xar fa yow. barke Rasulullaay ba tax na xoolal réew mi ñëpp la bëgg ñëpp la saf. kon yow bu ñëwee si fu ñu wax loolu. bambara yi bëgg nañ ma. joolaa yi bambara yi pëlëfuuta yi ñaago géwél mbaay sax dañ laa bëgg. monsieur le président yow ku la xam da nga noppal toggukat wala ñoom ñoo la daan togg. mbaa seen lekk yi neexoon na lekk yi moom wax dëgg yàlla neexul. neexul de kon xaw nga faa sonn de. Mm, Poutine moom wax dëgg yàlla moo tax xam naa ne mu lapp. baal Poutine monsieur président. looloo tax mu lapp. Ah. président. Mm. xam nga yow Gambia du la soosay bëgg nañ ma soosay bëgg nañ ma soosay. ñëpp eh, la bëgg a. Gambia du la seetaan nga fi ñaaw. pël yi bëgg nañ ma eh, pël yi du la seetaan nga fi ñaaw. dañ la bëgg. xoolal ñaaw olof yi bëgg nañ ma olof yi. dañ la bëgg waay olof yi luñ la seetaan nga fi ñaaw. dañ la bëgg xale yi luñ la seetaan nga fi ñaaw. dañ la bëgg ñu ko bëgg. ñoo ngi nii xale presse waay. ñoo ngi nii xale presse waay. ñoo ngi nii presse ñu la bëgg. ñoo ngi nii ay ko fati waay. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi diin bu yeewoo samar yi waaw rosia neex na de. waaw président mi mbaa ma ngeen ko xaalis rosia mu ñëw di ñu ko. xam daal rosia moom neex na moom. ah man nag man moom. len rek ma si jaaxal de. Mm. ni mu wooyee Poutine bu ko Poutine déggee dina ko mere torop. moom bu nu ko wooyee. ah ok mu bàyyi noonu rek monsieur Adda. ah yow yaay toog fi di war président de de ay oh, oh, oh, yow fàtte nga yow fañ la naroon a tëj. his excellence sànni caabi di. man waxuma. ah baax na. dama ni ni mu ko ooyee la xam nga Poutine dama koo xam. waaye yow xanaa Poutine da dul Poutine rek. kon baax na garaaw am problème. kon lii moo fi wàccoon bu dee leneen dina ñëwit sobrage lay doon waaye am na ñu ma fekk te démba kosturóor mhm. kër yaa ab sa tuggeey mhm. ñu di ma laaj ndax anti ndey góor la nga ne barki Mawlana yàlla na ko yàlla defal jàmm mu anti moomu lay foofu jëttale nit ñi ko doon laajte ni ñëpp nag sumay wujj lañ nuyu naa leen ñu ne ma <laughs> waa Xadi Ñang anti ndey góor la ma la anti ndey da jigéen la <laughs> anti ndey nañ la di nuyu di nuyu Mbow waaw ak Xadi Mbow waaw waaw Mbow sama xarit yooyu last rek Xadi Mbow mu ngi may seen voyage di la nuyu ah kontaan naa ci yéen ñooñu borom baax la ñooñu dañoo baax ah kay ñooñu dañoo moom baax di def baax barke rasulaay nuyu nañ leen lu bëree bëri ah. bu ko defee ma nuyu suma yaay Ndey Kumba Caam ci ne mën a zéro di nuyu Abba Seri Fan Mata Hadi Jatu Caam ak kooku di F Caam Fat Kebe madame Caam nuyu naa la bu baax nuyu xale yëpp ci kër gi nuyu tanta Fatim Diop nuyu kooku di tanta euh, Jooja Fall mhm. di ko ñaan jàmm ak salaam te naan seet bi dugg si si kër gi nag yal ko kër gi jik moom it mu ji kër gi ci barke alxuraan am na ci solo ma koy bëggee baax kooku di alaaji Pande foofu ca euh, Sukuta ak soxnaam ak mboolem ku nekk ci atelier ba bëggee nañ leen waxtu wee jeex waaye di nuyu waa Dakar yi suma rakk yi nekk foofu yëpp papa aman neng papa Ibu Ndiaye ak seen ak njaboot di kontaan ñoom Fat Ndiaye Fat nuyu naa la ak wagan fans club bi nek Neema eh, jital ci Sader ak mbollem ku nek ci bir fans club bi fans club bi nek banjur Kabou jo maa di béggee ak kep ko xamni yang ci fans club bi siar na ñep béggee ñep contact ci Lulia Daba Jeng ma jeng sala boy nek sala ci roma jigen ya rohi sengor mu ngoog ci solo yi anti jogo may saar ma jigen sek ñep nuy nañ len wagan tay fi nga genn ku fi genn fi ma ni nak mm. euh gouras boutique xam nga ko ah, xam naa leen xale yooyu di toj dekk ñoo ñooñu dañoo def bax gouras boutique mm-hmm. muy gor ak ñom Mout kebe ak nga xam ne moom mooy euh, sama xarit bi euh, di séeri di séeri góora euh, muy Kaja. Kaja sama turandoo doon waaw Kaja ñoom ñoo jaar fii góoraas boutique daal moo jël piis bi jox ko ki nga xam ne rek moom mooy idi mu ñaw ko ñëw bu rafet bii. boo bëggee am na góoraas boutique seen nomba pour dem fa ña nga ca bànjul waaye ñu ngi fii ci Tippa garage. yere yu rafet yi lañ am xam nga li oyof na neex na machallah allah. te si tàngaay bi waaye du tudd tudd yi rek. fa so xeetu pis bo bëgg. courage boutique am nañ ko. Mhm. bo fa duggé dal mom sa na ngay nek yaa ngi mel na ngay mel ku nekk dubai Modou kebe nuy na la goro nuy na la Kaja nuy na len contane ci ñom bu baax ba sen nombre nak da ngay def 349 6033 wala nga jël nombre goro bi bo moy nombre goro bi ci bopam moy 349 6033 wala nga wote ci 3072 354. wala nga woo idi mi ma ko ñawal mhm. ñaw bu rafet bi mhm. nga woo ko ci 341 8221 mbaa nga dem tippa garage boo leen wooyee ci eh, boo demee tippa garage tam di nga am piis yi nga xamante ni moom lañ am mbaa nga woo Modou Kebe ci 769 3823 769 3823 bi mun nga wax ak moom ci whatsapp kontaan naa ci Goraas boutique yàlla na seen jàmm yàgg macha allah eh, ñoom sax ñu ngi ñëw ci show bi nee nañu am nañ advert boo xam ne dañ ko bëgg di dawal ci digg show bi ndax show bi tey yi moo koy corate mhm. ñoom lool lañ wax tey Goraas boutique dañ ba ñëw de ñëw dafa yàgg ah, moom dafa ñëw rek am baax am na solo waaw bu ko defee rek man it eh, rek ma ñëw wax leen ñëw bi ku fi jaar mhm. muy Ibrahima Fofana mhm. mu ngi ci Latrikunda Saabiji ci garage bundung bundung bi rek mu ngi la féetee ne ah, waaw moom tam ndombam three two one one one triple one two three wala three two triple two triple one three two wala seven five one double one nine su ko defee uh, di leen wax rek gis ngeen daggit bi nag bu ma paree ma wax leen bi lu ci ne balaa may dem ci lu ne ma wax rek Haidara Plaza comme ni ma leen ko waxee Mouhamed waa gis ngeen waaw Mouhamed mm. Gueye mm. Mm. gis ngeen saa yu ma solee dàll nu dàll bi mënti mel moo ko joxee gis ngeen bii jaaru nopp gis ngeen jaaru yi lépp nag si moom lay jógee mm-hmm. te temps yi nag ba waagaan dafa indi xeetu dàll yoo xalaat ci àdduna ci façon bu ne style bu ne kolo bu ne nag waaw mere naa ko trop ah, bu loo ko mere yàlla dafa bind góor bind jigéen waaw mu jël rek boppam rek féetale ko jigéen ñi <laughs> eh góor ñaa ngi fa de yaa ah. demut demal mu jox la ji nag simis bu rafet. Serigne Fallou Ndiaye waaw waaw benn problème bu loolu weesoo mm, mm. gis nga ne nag daggit bi mm. dafa am am am style am gis nga eh? waaw daggit bi nii la booy dafa yàq sa yaram bi nii la pare guddee eh. gis ngeen dox bi yëpp tip tap la nii la ko ñëwee nii la ko eh, Ibrahima def ca laariku naa saa bi def nii ko lii dafa garaaw de. lii la si nii de la def dama ko koy wane rek moo ko def di yàq ma. ma démontable la ba jeex tàkk waaw lépp démontable la. am na ci solo eh, mu nga foofu ca laariku naa kon mbokk yi ñuy seetaan ñu jox leen dig daje ba beneen samedi ci waxtu bi. jërë ngeen jëf awal ma nii awal ma nii. noo koy def benn bi non awal ma ko rek ma wékkoo du problème. da ngay séddale. jaajëf ah. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi bu yeewoo samar yi